génération bi donc fi ñuy fi ñuy fi ñuy dugg nag grand mooy euh, euh, ñu gis la aussi nga nekk un un euh, nekk entrepreneur wax naa ko sànq culturel nekk aussi musicien nekk nekk rappeur engagé. saa mm. ça ça dañ koy dañ ci dañ ciy dut baaraam ndax sànq wax nga ko ne nga am na ñu fekk alternance. Mm. yéen am na lu ngeen liggéey ci alternance bii fi ne. Mm. tey ñu gis ce pays là. avec l'actualité y pas mal de choses qui se passent. tey bu ñu defoon benn benn benn projection ñu ne la xoolal Sénégal jamono ji avec comment on ni ñu koy diriger lan ngay sentir et qu'est-ce que euh, sentiment bi ñuy njëkk am mooy ni euh, on a perdu on a perdu beaucoup de temps di xeex pour ay pour ay mbir et on a l'impression que ni benn instant on on avait pensé que ni c'était gagné lii am nañ ko war ko weesu wuti wut war a dem ci leneen. Mhm. mais dañ ngay am impression que ni dañuy rester ci même point position wala dañu dellu ginnaaw parce que wax dëgg yàlla ba hip hop duggee Sénégal la majeure partie lu si bëri ci démocratie li ñu wax ci démocratie liberté d'expression daf si bokk ko et le le hip hop a joué un grand rôle ci loolu noonu. mu am mu décliné wu ci ay secteurs yu bëri les gens ont osé dire les choses voilà ni nga ko war a waxee koi mm-hmm. amatul di ci hésiter quoi il on a le hip hop a apporté benn vague boo xam ni les sénégalais aussi on dañu commencé conscient que ni il ne faut plus laisser les gens s'occuper nous gérer comme ils veulent quoi. Mmh. Et on a toujours, on avait l'habitude de dire que on ne faisait, on ne faisait pas, on ne fait pas de la politique, mais on s'occupe de la politique. Parce que si tu t'occupes de la politique, la politique s'occupe de toi. loolu lañu ñu mës a wax donc le hip hop est né engagé au Sénégal phrase bi njëkk duñu PS duñu PDS ñun ñooy PBS loolu sa voulait tout dire. et c'est valable jusqu'à présent parce que man ci loolu laay tënk ko je ne suis pas partisan ni opposant je suis beneen force de proposition bu nekk ci côté wu population bi mais population bu faible bi ko bi nga xam ne dañuy subir bi nga xam ni dañuy dund ay difficultés bi nga xam ni dañuy dund la misère la pauvreté dañuy dund dañuy dund dañuy dund man ci concept yooyu lañ doon lañu la moo tax ñu dugg ci hip hop. Mhm. on n'est pas rentré dans euh, on n'a pas fait du hip hop de la musique pour être riche pas ni pour être célèbre du woon buzz wala xaalis moo tax ñu def hip hop ñun lenn moo ñu taxoon a jóg ñu ni dañuy def hip hop que les gens arrêtent de nous regarder comme des agresseurs parce qu'on vient de Thiaroye mhm. parce qu'on venait de Thiaroye que les gens arrêtent de nous voir comme des moyens que rien alors que ñenn ñi sax yaa leen gën a jàng il faut que les gens apprennent à nous respecter parce qu'on a fait un choix de faire une musique où les non-dits et les peut-être sujets tabous nous on va sortir ça et dire ça et régler essayer de voir euh, comment régler euh, euh, gérer ça avec la société mm-hmm. dañ doon sol kagul parce que suñu kanam in bëgguñu woon mu intéressé public bi suñu ay parole la ñu bëggoon mu intéressé leen li ñuy wax ñu dégg ko ñu doxe ko et c'est loolu moo indi alternance bu njëkk bi parce que tout on a passé beaucoup de temps à faire des sons juste parce qu'on a changé on a besoin de changement c'était pas parce que c'était pas bien ou c'est pas bien mais les deux choses doivent changer mun nu mënuñu dëkk rek éternellement ak benn benn benn système ak benn régime quoi. Mhm. et là quand les gens ont compris ñu am am nañ alternance boobu mooy wax après dem nañ plus loin après deuxième alternance bi ñuy wax parce que quand on parle de politique et de rap ça ça ça de très longtemps. donc maintenant li may wax rek ay génération la après notre génération est venue la génération qui euh, bi nga xam ni moo peut-être mën nañu wax ni ñoo topp ci ñun. c'est Fumala, c'est Simon, c'est Turgui, c'est. Euh, voilà, la, dernière génération. Ils sont venus euh, avec un niveau d'engagement, ils sont allés plus loin, même descendre sur le terrain. Nous mm-hmm. avons alternance. On s'est dit que on, on s'était ak président boo xam ni gën a nekk jeune quoi parce que voilà peut dañ jàpp ne gën nañu jege donc lu jëm ci ay liberté de parole wax de wala liberté wu marche ak jàppal bàyyi détails yu ñàkk fayda yooyu man je pense j'avais di pensé que ni loolu xeex nañ ci romb nañ ko quoi mais jusqu'à présent c'est un problème et gis nga lan moo indi yi am ci réew bi tey jii nii parce que gis nañ fi soulèvement boo xam ne kenn xalaatu woon ni lu ndaw loolu mën na yëkkati askan ba mu am xaw ma treize dañu wax xaw ma quatorze ou douze morts quatorze morts dans un pays où on dit que ni am nañ démocratie bu bu avancée on est les les populations maintenant politiquement les gens sont dañu mûrs quoi mais on se pose la question comment se fait-il que pour question bu demee noonu on a quatorze il faut se qu'on se repose des questions et si on suñ ci taxawul jéem a xool lu indi loolu analyser ko sérieusement yeneen day ñëw te mooy saytu te bu ñëw day pire Wade euh, avec Wade avant muy dem on a presque une année boo xam ni presque année boo de 2011 à 2012 lépp ay manif la ak ay voilà ak ay marche ak i on avait combien de morts au finish matu quatorze wala bokk. douze douze. lii jegewuñu ay élection bëreet benn affaire bu kii on a quatorze morts il faut analyser et nous on n'est pas là on n'est pas comme les journalistes on n'est pas là pour dévoiler xew on doit anticiper et voir ce qui va se doit se passer si on fait pas attention demain ce qui donc va le se pire est à craindre et si on fait pas attention on ne waxuñu ci sérieusement jëluñu ko au sérieux taxawuñu ci Sénégalais bu nekk jëlul responsabilité remettre en question xool moom lan la ce ba loolu am lu ko nag raaw day ñor. est-ce que le sentiment boobu li ko indi mooy peut le fait de tenir les gens en haleine que élection 2024 oui ou non. yo yo yooyu yëpp da ciy bokk yooyu yëpp da ci bokk te loolu yëpp euh, je veux dire mooy li nga wax rek waroon nañu romb fii quoi actuellement Sénégal. tey on va vers des élections yoo xam ne waroon nañu ko organiser je ne sais pas depuis quand mais voilà. est que du li ngeen. xeex bu njëkk tey dañuy xeex après bàyyeeku. li fi li fi nekk gënul woon piir li ngeen doon xeex. bon quel que soit alpha on ne peut pas deviner mënuñu woon a xalaat situation yu mel nii lañu lañu la ñuy amal ñuy xeex. mais c'est beaucoup plus compliqué. ba ñuy xeex non non c'est ça a toujours été compliqué. Et ça mais comparer, la c'est un, un, un, euh, encore une fois, le combat est loin d'être gagné. tout ak ñuy yëpp man toog si sama xalaat bu gàtt il faut que sénégalais bu ci nekk bañ cee xeeb boppam mu toogaat def prise de conscience xool fan la jëm parce que chaque fois daa mel ni daa mel ni daa am ñenn ñuy jiitu rek jiital ñu rek ñu topp seen ginnaaw quoi et ñooñu souvent. li leen arrangé mhm. ak ñun lañu ñu arrangé bokkul ce qui fait la différence entre ces gens là pour te dire pour dire que on n'est pas ci ñaari côté mais ñun daa fu ñu taxaw parce que c'est des gens que ça soit des gens qui sont au pouvoir ils cherchent à se maintenir ceux qui sont dans l'opposition ils cherchent à accéder au pouvoir pouvoir la ñu ñun dund gu gën ci ñun la ñuy bokkuñu ay préoccupation des fois day mel ni dañuy bokk combat te bokkuñu combat parce que am na fu ñu egg rek dañuy tàqalikoo et on a vu ça à un certain moment le président actuel était à côté des des populations mm-hmm. mais boobu population bi ñu ngi wut lu gën ci ñun suba luy def Sénégal luy change Sénégal mais moom ñu ngi doon wut pouvoir maintenant et aussi est-ce que tamit gars yi jëloon nañ temps xool carrément na fi kiy jóge rek ñu indi peut-être keneen. mais est-ce que a yooyu xam nga débat yooyu yëpp gars yi wax nañ ko et tout mais moi je pense que ni nag foofu la ñu war a xoolee nag ñu arrêté par farloo wala lii mooy la parce que quelqu'un qui a fait huit ans avec le même système. système après kii ñu ñëw ni bon nañ fi jëlee kii rek bu ñu fi jëlee koo kay ña ànd ak moom pendant pendant huit ans kay buñ buñ bu ñu xool côté boobu. <laughs> mais mën nañu jël benn ni rek. Falokh ko mais il avait fait huit ans. oui avec avec avec ce lu bari la Falokh fekk. mu def ko fa aussi. ñëw bëgg a ne mel ne ko bees tàq gars ne bon nañ ko jël essayé ko ko lu ñuy essayé. est ce du loolu mooy kon dem nii ba tey est ce que du loolu mooy kon. Eh, eh, mais loolu mooy moo moo ñu gën a sonal ci ak moom parce que. c'est pas quelqu'un qui est venu pour euh, naan day euh, apprenti politique la wala président non il a exercé xam na comment ça fonctionne et c'est mu nekk ko mu gën a doy sax. moo gën a moo kon. non yooyu <laughs> dafa ñàng non sérieux ah parce que dafa xam xam nga kii xamul. ñëw ñëw. dina jéem a am ay lu muy topp quoi kii daf ko pra daf ko mu ci yegg si. donc la daal ñële ma mu la leen gaare. du koy gaar du ma looloo koy gaare de. on devra faire plus par rapport au. au... <laughs> je <laughs> ah. jàpp ni day yomb billaay walaay da nga nax sa bopp. donc du yomb grand. non du yomb du yomb. avec tout ce qui s'est passé en. non 2012 non xam nga li tax man la du yomb fa mu commencé ba mu commencé fañ ko waroon a régler dañ ko romb lu bëri bëri bëri bëri bëri. waaw hmm. donc quand quand tu es avec quand il était dans l'opposition mu ni day def cinq ans mu ñëw au pouvoir di ko naxasaale di ko naxasaale di ko naxasaale ba def sept ans ngeen man ci laa ki ngay xam ni kii voilà. narul jàmm narul jàmm. foofu la ta foofu la tàmbalee. ça date de très longtemps. wane na boppam bu yàgg. donc qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant nag est-ce qu'on a... ce qu'on doit faire c'est c'est là là c'est c'est une bonne, très bonne question gis nga ni am na ci ni koy bëgg a bu ñu jàppee ne nañu régler woon bële noonu la ñuy régler bii dañuy def ngandamaam mi erreur ngandamaam mi erreur la ñuy def te erreur boo xam ne mën nañoo jural loo xam ni euh, ñaanuma ko yàlla pour Sénégal parce que ak régime bi passé enjeu yi c'était politique quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. ak ay frustration yu am si biir ak ay affaires yu am si biir dëkk bi mais bii pa dafa am trois yeneen élément bu ñëw aj yeneen élément yu ñëw ajouté si mooy ni Sénégal actuellement dafa nekk dëkk boo xam ni dañoo yore loo xam ne dañoo war a toog di ci waxtaan di ci wax waruñu xool noppi dañu yore lu àdduna soxla donc am na benn élément boo xam ni du Sénégal yoonam nekkul ci Sénégal mi ngi tàkk wala tàkkul mi ngi dox wala doxul li ko yitteel mooy comment il va pouvoir faire pour loolu nga xam ne mi ngi Sénégal te ñëpp soxla ko moom nan la ci mën a jotee quoi il utiliser sax un matador bu ko mënee utiliser pour jot ko quoi il faut que ñu waxante loolu et bu ñu toogee nag di jàpp ni rek voilà. am nañu ay am nañu ay ñaanu sëriñ yu baax kenn weranteew ko mais tamit fagaru moo gën faju le problème qui se pose mooy ni li xew ci yenn dëkk yi am yenn ressources yi la fa xew gis nañ ko système bi gars yi di def pour récupérer ko xam nañ ko ils vont venir semer la zizanie indi daal des problèmes euh, euh, au niveau euh, social ci population yi gars yi nekk di rayante ñuy sàcc say ressources buñ yaakaaree ne mën nañ ci mucc yàlla rek ñu mën a dimbali mais aussi il faut ñu préparer ko pour ci loolu que mu nekk ñu nekk ci au pouvoir que mu nekk ñu nekk ci opposition ak képp kuy waaj di dugg ci politique gars yi mën nañoo jaar ci fi leen gën a arrangé bu ñu demee ba xam ni kii arrangé leen il faut foutre la merde mun na jaxasoo ñoom la ñu jël li ñuy jël. kon le combat c'est la rue. non il faut qu'on soit vraiment ñu dal ñuy waxtaan ci l'essentiel yu arrêté tamit caaxaan yu bari quoi. caaxaan yu oh. bëri yi ci l' essentiel wax ko léegi ce gabegie là toujours dans ce pays. on parle donc parce que deme des fois gars dañ lay pousse si ay dañ ñuy pousse si caaxaan quoi tu vois les gens moi quand vois du matin au soir ñi ngi nekk di wër ay TikTok ay affaires yoo xam ne c' bien nga des fois nga seetaan ci boo xam ne da ngay reetaan fàtte say problème mais fàtte say problème taxul say problème rek la donc ñoom il nous pousse vers vers ça di di di di gën a dugal population bi di leen gën a tayal lool wala di seen xel yi pour ñu bañ a xalaat ci vrai sérieusement li war a am li nga xam ni éventuellement war naa ñëw dañu war a ñaaw njort ci li fi war a mën a am gaz daa am Sénégal ma xaw waxuma sax ay pétrole gaz problème la et quand Poutine Europe gars yi mënaluñ ko dara c'est parce que daa yore gaz donc ñun ah, ñu am benn ancien colonie boo xam ni gaayen bi moom soxla na gaz trop amul gaz te ay ay ay genre dëkkam parce que dëkkam la la jàppe daa jàppale moom ñoom ñoom moom moo moom ba léegi am na gaz mais ñooñu ils von pas ils vont tout faire pak gérer nu ñuy mën a jële gaz boobu parce que loolu sur kii de survie la pour ñoom. gaz bu ñu ko amul benn instant seen survie. sax mais grand tableau bi may defal ça sax ça devient. ah mais tableau bi may def de yéen ñëpp xam ngeen loolu li fa am Mauritanie Sénégal la am gaz France amuñu gaz donc le problème ak yeneen pays européens <laughs> yu bëri à part bon tax euh, gis ngeen ko léegi nag. zircon bi waxaale wuñu ko je parle même pas de waxaguma ay pétrole quoi. donc gis loolu noonu. tey bu ñuy wax ci politique dañ koo war a boolewaale ci réflexion yi di xalaat bu ñuy dem ci wàcc ci mbedd mi dañu war a xalaataale loolu parce que gars yi en n'importe occasion bu gën ndaw danañ ko mën nañ ko exploiter parce que gis ngeen fii ay Libye ak feneen ak feneen. lu taxoon les les arabes là ils sont jamais en paix ils sont toujours en guerre parce que y a de la pétrole pétrole dafa nekk la. te ñii euh, te te te problème mooy euh, Sénégal dafa mel ni conscient ñu ci. loolu ci loolu. te gars yi xam nañ ñoo ñu gën a xam li fi nekk ci ressource ñun ñi fi nekk. te te buñ la déggee ñi fi nekk pare wuñu pour pour. Ah non je xam nañ nag. gars yi xam nañ de. <laughs> xam nañ bu baax mais des fois. Euh, nit xam nga euh, pour sa pour sa boo boo boo dul fàtte sa bopp pour say propre intérêt rek des fois mën nga sacrifier toute une population ci loolu sacrifier toute une population on a waa gis nañ régime bi y' a je parle pas de du régime de. dama wax nit ci boppam. waaw parce que mën na nekk ci régime ku nekk ci régime. mën na nekk ci keneen sax ku nekkul ci régime. mën na nekk aussi opposant bu bëgg tamit jot ci affaire yi mën na. gars yi mën nañ la ngemb. ngemb pour parce que gis nañ ko feneen ak. pour attirer le feu donc ñoom ñëpp dama ni nit yi ñoo war a def attention ñun ñëpp n' importe Sénégal bu nekk daal na jàpp ni dëkk bi lépp kii essence la. te Sénégal bu nekk na jàpp ne ab brin almet la. mën na taaw mën naa taaw.